actu commenté li gën a euh, ci euh, information oui, di ko dalee démb ak série d'arrestation ñu ngi gis tribunal j'achnatai, voyez tey waaye du tout ko cybercriminalité j'achonne euh, section de recherche tamit ngi commencé di woññeen nit ñi baasan opposition bi ak li nga xamante ni société civile ñu ngi commencé nag di inquiété wu ci s'en sort. waaw jërëjëf maam Khoudia je suis en face du document du conseil des ministres mhm. d'hier. malheureusement le conseil des ministres bi sax fësul -hmm. d'excellentes mesures de stratégie ils mhm. ont été annoncés et voilà par rapport à l'éducation. il y a tellement de choses mhm. mais malheureusement Mme information bi mu ngi nekk ci loolu mm. ñi ñu jàpp ñu arrêté am ñenn ñoo xam ne dañuy taxaw ne c'est bien fait voilà ndax ñu am jàmm dëkk bi dañ ko war a teg ci yoon waaw affaire yi dafa war a tege waaw naa en a marre nag humblement te yàlla tax ñu am ci beneen gis-gis maam xujj mm. man dinaa gañe coupe du monde di xuloo man dina mën équipe 5-0 mu dess une minute d'arrêt de jeu wadi nek sama ginnaw yàq ma lu melni xamé ma dégg ko may footballeur de capitaine équipe ma tourné ne ko nga la néw ma mën 5-0 maa ngi ci arrêt de jeu. Zidane ak kan Materazzi wala. coupe du monde 2006 bobu sax wuti na. Hmm. am na différence. parce que bobu boobu lolou leneen la. Hmm mais bii dama boobu Zidane mënewul. Mhm. da doon xëccoo. waaw man ma mené 5-0. arbitre baa nga seq sifflé bo xefee dans 30 secondes mu sifflé feewu match bi. waa ji tourné ma ne ma yow ak sen wa keur waaw <laughs> xulil ma tourné ko ne ko teel bëgg. Hmm. arbitre ni e eh daw songu ñu rouge ma. Mhm. loolu mu tudd je fais une métaphore pour mhm. dire que. nguurab Sénégal bii di doxal Sénégal yi ëpp ànd ak moom kontaan malgré les difficultés ça et là nangul ka ne ko yow rekk lañuy topp yow nguur gii ko waruta xuloo waay mm-hmm. non waruta mer waruta jàmmarloo tolluwuñ fa mm-hmm. damay romb circulation bi mm-hmm. ma gis may dégg ma gis boutique yi jàpp seen TV di setaan daanaka à un moment donné seen TV ma kër gële kenn seetaanatu ko woon benn moment mais diggante démb ak tey audience bi seen TV am kenn xam nu mu toll te pourtant population yi nga xam ne ñoo ne àndu ñoo borom seen TV ñooy jàpp télé ba xam ñu dañoo dañ kumpa yëpp la ruée alors que démb dans la journée il s'est passé un excellent conseil des ministres

xam nga kii déranger kii déranger bu fekkee ci wàllu politique la. gis naa tamit Thierno Alassane Sall tey ñu woo ko. waaw bu fekkee ci wàllu politique la euh, nguur bi lan moo ko war a mën a déranger ci politique. Mhm. ce pouvoir là ce régime là à l'onction populaire maanaam peuple bi ñi ci ëpp nee nañ ko yow la gongo. 54 quand même. 54 pour cent sax mooy li officiel nii mais ñii nga xam ne jotuñ seen ay carte ñi amoon intention ñi ñu bloqué ça et la jaxase élection bi ñooñu bu ñu bokkoon amaana da naan plébiscite de 60 wala 70 jëm kaw loolu su ma ko amee du ma mer billahi duma xuloo ci ku jógee ci opposition du ma mer du ma xuloo danaa baale danaa jéggale danaa aju ca kaw nekk ndaanaan dañ ko doon wax Macky Sall yàlla dëgg la bëgg mhm. nguur gi dafa am possibilité tey réussir lu bare te nit ñi nag man ci laa bokk barke bàyyi laay alayhi xalifa ababacar ak àllaaji fàll ak maam baay ak maam bukkunta ak amari ndaak amari njëgën amad dem amad siise pir abdoulahi siise ca ca jaamal sanu maam sanu maam aliou asi siise ci jaamal barke El Hadj Malick Pouy fii ci mbaaw ñu naan ko Cheikh Abdoulahi Abdoulahi Pouy di ndaanaan kilifa bu mag yàlla na yàlla yokk ay leeram ci àddina mi gën a kawe barke Cheikh naa Cheikh Saad bu Chérif ba xeertu Cheikh naa Cheikh Abdou Khadir Jeylaan Cheikh naa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Cheikh naa Cheikh Mouhamed Vadal barke alxuraan rawal nguur gi la ma àndal mhm. dama am yaakaar ci ñoom ndax damaa njot ragal yàlla ci ñoom parce que boo nee diw dafa ragal mhm. leeru la mhm. sunu borom rek ko xam mun naay jàpp yi julli te nga leneen kon ma maandu yakar ne yaakaar am njort bu rafet bi ma am ci ñoom ndax ni ma leen gisee ak seen taxawaay di leen dégg ñuy jàng alxuraan ñu ñu ko xam que miin ñu am ñu leen di gis ak ni ñoo ma am yaakaar ma ne duñ tas sama yaakaar. Mhm. waa ci jëfin ci man munu may tabax immeuble di wàcc di wax ak ñii di xuloog ñii di yëgaat. leer na nañ bu yàggee du ma tabax. leer na nañ nguur gi fi dafa falu. Mhm. am ñoo xam dañoo jóg pour yàqal ko. Mm. mais li am ni jamono bii. Mm. ñi jóg pour yàqal ko lii la ñu bëgg. dañoo bëgg nga may leen opportunité di leen jàpp di leen delloo di leen téye nit ña necca yow li nga war liggéey yëpp boo xefee yaa liggéey de mais sa débat est toujours ci fofu la nit ñi di jëmale. la presse ñi ngi doon def de la justice. oui du tamit indi euh, jaxase ci suñu xel xelu sénégalais yi. non justice moté. la police, la police sûreté euh, cybercriminalité voilà parce que di wax na diffusion de fausses nouvelles. Mhm. injures, par exemple niñ ñu etc. Bougane et injure. ak délit d'opinion bi tamit day faral di ñëw délit d'opinion wo injure wax dama lay jox benn misaal. Mhm. ci waxtaan rek ci xel. war ma rek lañu am ci kilifa yi au delà war ma lañu am ci opposants yi. Mhm. Bougane commissaire Keita Kader. Mhm. bi waxoon ci police bi. waay euh, Thierno Alassane Sall bi ñu woo. ak keneen ak keneen. en un temps record. psychose bi ñu nekkoon sous Macky Sall nga xam ni opposition day wax euh, société civile wax ñëpp wax. mais en 6 mois 7 mois ñu bëgg a des ci ci ne nañu ay nit. Mm. nit ñu wara a nak journaliste site yeeg ñëpp ku xëy. ut vue ñey wut leneen ak leneen. yi nga am nag opposition boo xam ni yaa lijjanti seen ay il te faut des preuves. Mm-hmm. yaa ngi ci gëstu preuve yi ñoom ñuy ut ñenn ñi def di ut ñu làqi preuve yi yow ngay ut nooy preuve yi apaisement ak calme ci mm-hmm. mais ruubekat. coowal lawbe lay bëgg day bëgg yëfi ba ji ba yooxu ca kaw ñëpp bu ñu riiree sàcc bu jaxasoo amee rek ci lay rëccee mhm. ñi bëgg a rëcc nag jaxasoo gii daf leen a arrangé tax nguur gi très sincèrement mhm. ak ak yéene ak amour bi ñu am pour ñoom dama bokk si ñi leen di ñaan justice mooy woote wala sécurité publique mooy woote ça n'a ak diw mbaa maître Bamba Cissé wax na ne du Ousmane Sonko moo porté plainte démentir nañu mhm. soxna si mm. bu dee bosu Cheikh Yérim du Ousmane bu dee bosu Bougane du Ousmane wala Ousmane la bu mu ci mënti doon. te procureur autosaisirul. bu ci mënti doon. Hmm. kii di Ousmane Sonko dund na fi loo xam ne gëmoo ne opposant dana ko fi dundati kon man bu ma jàkkaarloo caméra bi nii kilifa bi nii kilifa gi bu dee àngi xool sa frère moo laa wax ne la bu dee dañ laa tooñ ñu ne daa jóge ci yow bu dee looloo am baal mu sedd bu dee loolu amul ñi nga xam ñu ngay def ils ne lui rendent pas un bon service ils ne rendent pas un service à l'État du Sénégal ni au président de la République ñu ngi yàq di salfaañe liggéey bi. dañuy des ba tey euh, ci politique bi sànq ci say biir wax am na de ma junj. Hmm. ne ma def nañ conseil des ministres. bu neex euh, ci biir conseil des ministres boobu am na lu ma ci for. ci wàllum éducation. waaye ñenn ñi nee nañ leerul bu baax ci seen bopp. ma bëgg nga tojal ma yàq bi. c'est très simple. Mhm. quand on parle de changement systémique et quand on parle d'éducation c'est refaire les fondamentaux yi ñu doon wax sànq. Mhm loolu la nguur gi ci la ci la le président il appelle à un conseil fële ca primature bon xam sur l'éducation, éducation moom kilifa bi premier ministre diligente que ñu doxal ko. Mhm. pour la refaire notre façon d'éduquer, refaire notre façon d'instruire. instruire. loolu ci école bi rek lay yem wala. fépp la. Mhm. enseignement supérieur comme éducation. Mhm. changement kay boo ko bëggee si fépp si général. léegi nag ci biir faut kilifa yi dañoo am gëm-gëm ak gis gisou

sunu nguur gi des stratégies yu bees mhm. yu jëm ci numérique économie gis président New York am na sur le plan numérique américain euh, technologie mhm. c'est bien c'est excellent ak sur l'agriculture il a demandé au ministre mhm. concerné de faire de sorte que nous rendons compte davantage par rapport et surtout nous évaluer la campagne de commercialisation Bien actuellement mhm. il y a tellement de données On a le conseil des ministres y mm. y a sayda RTS nous avons def plateau Comment lire communiqué plateau plateau mm. chaque conseil des ministres plateau Nous point par point suivant qui économiste qui qui juriste qui qui éducation Le conseil des ministres nous lii la plateau parce que les Sénégalais mm-hmm. on doit leur dire de façon efficace et efficiente que ce régime là bi ngeen am yaakaar ni ci ëpp mu ngay doxal nu di ko gis et que la communication étatique di dem dans le sens de driver les débats les discussions par rapport à ces activités mais bu fekkee lépp dañ kaa posé sa waay yow li nga def yëpp kenn waxu ci mhm. waaye la sa noonu di def saa ñu xëyee ñii di posté ñii di publier ñii di nangam ak nangam ñi ci war a ñi ci war a jot dégg nañ la eh, yow dama ne ku tojul ah. du la yëg balay wane. leer na naa ñi ci war a jot dégg nañ ci te euh, suñuy kilifa ñu ngi liggéey bu baax ci lépp loo xamante ne rek ngir euh, dafay soxal information ci public bi ak askan wi ngir lépp leer ci seen bopp waaye ñu xam tamit euh, fan la ñuy teg suñu tànk.